say say fans pour ñu gis problème la loolee nag bëgg naa vraiment tey nga indi ci ay leer ak sama plateau gi euh, sa rapport ak sa fans yi. Aliou waaw sax dafa def retard. pànk baara day taali. loolu de la wax. ay non tout ça ça pànk boobu yooyu bokk ci man nag. vraiment uh-huh. parce moom euh, yàlla dimbali na ma. Mm-hmm. pànk daal ay xeex ay xuloo je touche du bois depuis may xale tey mm. te foog naa ne koo dégg depuis noonu mm. ba tey nii mm. mosuñu maa àtte te ñaanuma yàlla ñaate ma man fans sax mosuma la raccroché woon ne te it côté fans bi ngay wax aussi tey jii sa émission bi waroon na mën a nekk émission bu ñu ubbi boo xam ne nga jël quelques fan nga xool man damay jënd sama crédit damay woo samay fans mm-hmm. am na fans yoo xam ne bu ñu toogee duñ ko weddi devant moi may jënd sama crédit dama leen di woo dama leen di nemmeeku tey su ma la indilee sama téléphone bi nga xamante moom laa def pour samay fans neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf personnes ñoo ci ne macha allah hmm. te munuma ñëpp di wuy ñëpp par jour dama koy yemale rek léeg ma wuy dix wala vingt hmm. parce que damay sonn aussi hmm. damay génn defi promotion wala damay dem jouer ji wala damay def nangam te damay jokkoo ak ñoom. ku bàyyi kër dugg kër liñ ñu yare ñun danga koy toppatoo teral ko teraangal ko. amul fan si buy ñëw suñu kër gisee fa neneen wala noonu amul xam nga nag kumpa. léeg-léeg nit ñi buñ la xamul kumpa day tax mën nañ la juger. Mhm. ne kii lii kii ne nit kenn du ko luye. la su fekkonte ne amoon nañu tey benn ñàkk ité bi ci nit yi. Mhm. du ñu def grand théâtre première. mu fees ba nit ñi mu ñu dugg. Sénégalais de kenn moomu leen wax nga dëgg. deuxième nga ñëwaat mu ëppaat. troisième bi nga ñëwaat tikkee jeex. Mhm. waaw loolu nit ñi nga def leen na da leen moom. déedéet man moom ma Sénégalais yi. Mhm. lu dëgg kon daal ñi am gis-gis boobu. yow yaa ngi leen di xamal ne ku am gis-gisam it bàyyi ko gis-gisam ku am gis-gisam bàyyi ko gis-gisam. mais sa caractère bi ñi jàpp ni ci dafa bëri histoire. man histoire ban pànk léegi xam nga man lu ma bëgg. Mm. xam nga dañ nekk léegi Sénégal boo xam ne léegi moom da ngay di preuve nañu ni preuve na kenn ñëw na mooma jànni wala kenn ñëw ne daf maa raccroché au nez wala kenn dafa xeex ak moom dafa xuloo mosul am dans ma vie te ñi ngi koy xaar di ko foog di ko mës a gis xam nga nag jonge hmm. jekkatee kikkate fii lañ ko fekk te yoolu suñu borom dakaa def filing googu ci man la ne waaw ah, filing moom barka rasulaay dañ cee bëri ba muy rem yéttati day tuuru hmm. te gisuma ko koy for hmm. nit it bu ko jugee li nga wax ni daf ma neex gisuma ko koy for <laughs> eh. wax naa ko man ci li ci sama deret la ne dëgg la donc xam nga am na parfois nag euh, comme li nga koy waxee curiosité mm-hmm. dañ kumpa mm-hmm. titi lan la war a mën a dundee mm. ba suba dix personnes yi topp ko te gisuloo ma mm-hmm. loolu dina def équation c'est normal géej déggoo ma fenn suba nga ñëw fekk ma ak vingt personnes di nga lijjante nan laa def ba lijjante vingt personnes mais vingt personnes man la man la concerné na ma mel ak ñoom ba ma jaral leen di jaar ci sedd bi di ñoom man la concerné du ma la ko détaillé mm-hmm. ndax ku ci nekk am nga sa vie privée mm-hmm. ku ne na lijjanti vie privée mm-hmm. du dëgg mais nag samay digganteeg samay fans je touche di bois macha allah maa ngi sant yàlla ak ñoom ci bon terme la ñu ne ñi ngi dëggante ñi ngi kaf ñi ngi ree xam nañ sama actualité la preuve ana ah, ko ku dugg ci Facebook bi Titi Sénégal l'officiel di nga ko gis ku dugg ci TikTok bi Titi Sénégal l'officiel di nga ko gis parce que léegi foog naa ne aussi benn plateforme bi ñu nekk di liggéey aussi lépp lu def foofu la ne du dëgg plateforme yooyu sax après di nga ko euh, wax fii en direct mhm. mhm. du sa laal yoon bi ñu lay dànka bi ñu lay dàkkantal non laal yoon bi gaynde moom boo gisee da ngay fër laal yoon bi sax Ibou Ndour moo ma jox hmm. même man bi ma joxee laal yoon nee naa ko mais Ibou nag laal yoon mu ne ma yii laal yoon euh, bi may dégager ci kaw scène musicale hmm. jàmbaar gi ma ci nekk ci kaw seen musique parce que aussi l'apparence est est trompeuse comme ni ñuy wax mm. Mm. da ngay gis nit te mm. mais man depuis que je suis venue sur la scène musicale je touche du bois déggaguñu fu ñu ne Titi dafa raccroché au nez fans wala Titi tontu na fans man mun naa ne man maa gën a neutre sax ci artistes yi ci tontonte fans wala parce que awma temps boobu tontonte nii Paul nee na Jean nee temps ku ma xamul nag xamoo ma laisse les parler comme li Souleymane Faye doon wax ku la sànni xeer nga bëgg a wàcc fay doo yéegaat. dëgg la sànq wax nga lu am solo brossé nga ko muy sa jaar-jaar ci grand théâtre nga def grand théâtre bokk nga si ñi nga xamante ni loo nañu nit ñi li nga xamante ni moom moo di grand théâtre ndax ba muy metti nit ñi naan mënut a am ca nga ko feesal euh, ani tey ji ci fan la toll ci wàllu prestation ci côté boobu euh, grand théâtre mën nañ la xaaral grand wala yeneen salle yu gën que gis nañ soo ko waaw waaw loolu yëpp tamit euh, comme ci label la ñu nekk. Mhm. ñoom ñoo war a saytu xool ñu ci liggéeyee. Mhm. boobaa tamit ñu indiwaat ko rek jox ko fan si. d'accord sa rapport ak artistes yi lan la doon tey ji euh, parce que bëri na artistes yu nga xamante ni ci milieu bi bu ñu dajee peut-être ay prestations wala ñu dajee ci ay cérémonie dinañ toog waxtaan ka foore demee après fa lay yem. Mhm. Euh, duñu mun a xaar ci ñoom lu bëri comme lu mel ne ay featuring wala ay collaboration yu bëri bëri parce que peut-être a nekk du fa nekk à 100 pour cent. tey jii yenn rapport nga yu bëri jamono ji Sénégal mun naa ci dem peut-être ku mel ni Wally Seck noo mën nag artistes yi nag macha allah bu ma dajee ak ñoom dañuy kafre parce que ci loolu la ñu mën a dajee aussi mm. lool la loolu la ñu mën a dajee kafre mm. Wally Seck aussi ñu ngi jaale waale Papa Thione bi mu mm. génnee àdduna dama dem jaale ji ko dama ko dem jaale ji ànd ak sama famille ñu dem jaale ko muy Wally Seck euh, que muy Pape Diouf ak artiste bu mu mun a doon vraiment su leen gisee dañuy nuyoonte kafre ku ci nekk dugg def li muy def après ku ne dem. mais sur le plan musical. Ah. yan artistes ngay faral di di di consommer euh, di leen déglu mais également mu nekk ay artistes yu nga xam yow personnellement da nga am ak ñoom. ay link yu rafet ay rapport yu rafet dem leen te dikkalante. non dem leen te dikkalante nag boo ko waxee day mel ma jógee sama kër dem seen kër ñoom ñu ñëw sama kër loolu amul. lu tax loolu non parce que non du question choix de def ma kenn mm. ku ñëw sama kër dinaa la ubbi mais bu nit ñëwul tamit yow it kiwul séqquñu loolu mm-hmm. parce que temps bi parfois du koy maye mm. di liggéey donc ba nga xam ne peut être doo mën a am temps boobu noonu mm. dëgg lu dëgg mm-hmm. te tamit pour man relation tamit kenn mm-hmm. kenn du ko forcé parce que boo ko forcé bu subaa loo ci fekk mooy loolu du dëgg mais naturel moo fi nekk kaf ree bu ñu dajee dañuy kaf dañuy reetaan vraiment tey it musique bi nga te dama leen di déglu ñoom ñëpp man ñoom ñëpp aw ma ci barrière ci kenn ñoom ñëpp laay consommer parce que tamit li ñuy def dafa neex dama koy déglu mais ban artiste ngay gën a déglu yow am naa Youssou Ndour nga may wax moom non pas du tout ah. barke yonent bi naa wax tey benn secret ah, man maay artiste boo xamante ne bi ñoom ñëpp laay déglu te nii su fekkonte ne nii seen camera bi mënoon na yoot ndànk rek ndaw sama kër ñu taal ko boo mm-hmm. taalee dina la surprendre mm-hmm. toutes les artistes du Sénégal et du monde même man ñëpp lay déglu awma xaar ma yàlla ci kenn barke yonent bi concurrence bi ñu gis euh, si si ci ci musique bi di nga ma wax peut-être ne dafa si bis lañ ko yàgg gis bokk na ci li doxal musique mais concurrence bu fës des fois ba des fois peut-être muy indi ay problème ci diggante ñaari nit loolu est-ce que ji mën nañ koo xaar ci musique ak ci jamono bi ñu toll nii waa xam nga ne concurrence moom am na fépp hmm. mais mooy ko concurrence bu mën a am tamit nañ ñu ngem ba ñu génn dem concurrence ci frontières yi foog naa daal concurrence boobu moo ëpp solo mm-hmm. dem tey daje jeeg yeneen artistes yoo xam ne ci yeneen dëkk lañu ñu ne mm-hmm. wan leen suñu talent man pour man ci loolu la ñu war a ndox sax mm-hmm. ka nekk fii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bëgg rivalité suñu biir du dem mënul dem d'accord parce que fii pour man ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay rivalité boobu nañ ko génne ñu yóbbu ko ci frontières ci leen musique boobaa ñoom it bu ñu demee ñu découvrir la culture sénégalaise ci ñun ñun tamit ñu découvrir ñoom it seen sonorité musicale mm-hmm. man pour man noonu laa gisee. ci sens boobu soo amee conseil booy jox peut-être say rakk yi nga xamante ni yow yaa ngi jiit ci musique lan lay doon. su fekkee ne ci ci wàllu woowee. Mm-hmm. tey mm-hmm. lay doon jëm ci wàllu ñu gën a euh, a peut-être gën a bañ a euh, ci concurrence nationale bi. Mm-hmm. te euh, jéem a xool naka lañ koy génne ci biti comme ni nga waxee léegi. waaw waaw liggéey ci biti rek. nañu fexe daal ba ñi ci biti découvrir ñu mhm. waaw man loolu laa gis daal parce que bu dee fii ci biir moom fii amul solo mhm. amul sens sax mhm. amul sens vraiment ñu essayer nu ñu jàppale ñu génn pousser suñu musique ci yeneen frontière pour man moo ëpp solo ko fii daal dafay enclavé wu alors Titi na nga dikkaat ci ci li nga xamante ni moom moo di dikkatina euh, pourquoi déjà bëgg naa ñu ñëw ci ci liggéey bi bu baax a baax euh, ci dikkatina euh, titre bi nga xamante ni génnee nga ko après avoir marqué quand même longue pause ci wàllu musique ani tey ji euh, lu waral déjà expliqué nga lu waral nga marqué woon sa pause boobu yëpp mhm. euh, corona bi bokk na ci si raison yooyu mais tey ji pourquoi nga ñëwaat ak li nga xamante ni moom moo di dikkatina ak dikkatina lan mooy perspective yi nga xamante ni ci topp mhm. live la mhm. parce que ci album lii euh, titre yi mu jëwoon a génne ci Baye Karim bi la bokk ñu jëlaat ci ne pourquoi pas duñ ko remix jox ko melomaan yi mu nekk benn continuité aussi de parler ci album récent bi ñu mujjee génne. mais album aussi annoncé ah aussi que ne. Mhm. ñu ngi joob album. waaw mais pourquoi nga choisir turu dikkatinaa. turu dikkatinaa bi nag euh, Ibrahima moo ko choisir moom nag moom dafa mel ne dikkati naa daal dafa am problème ak moom da ko poñe da ko <laughs> <laughs> parce que dikkatinaa bi moom euh, c'est trop fort dikkatinaa bi waaw moom moom dafa dafa bëgg dikkatinaa nee bii bu doon def beneen mais nag moom comme dafa bëgg dikkatinaa bi mais dikkatinaa bi dafa neex ëpp na waaw dikkatinaa bi neex na et clip bi ñu gis ni nga def ko clip bu bu bu bu relax bu soft def ci également ay sanctuaire rafet euh, maigrir également jël sa taille moomaat sa ci daal yaa ngi belli fu mu nekk nii <laughs> mais dikkatinaa bi euh, liggéey bi nu mu demee bàyyi tooñ non liggéey ak ko liggéey bon commencé woon nañ ko nag doon job après ñu tegoon ko en standby après ñu jël ko la fait ci deux jours trois indi ko donc concept bi aussi quand yi ma loon donné comme ni ma la waxee rek ma gis staff bu ndaw bi na leen écoute clip live la ñu am man à propos ci tenue yi li laa xalaat mhm. ñu accepté ko mhm. loo tax nga gis comme ni nga ko waxee sañ sa yeeg noonu maa ngi ci profité sax ci loolu aussi mhm. am na benn tailleur bu nekk HLM 5 mais waxal lu la neex Lisa <laughs> Kell defal naa ah, defal lu ne <laughs> am na benn tailleur bu nekk HLM 6. Mhm. bi ma ko woowee proposé ko tenue traditionnelle aussi mu kontaan ci trop. Mhm, mhm. di Xaadim Dieng. parce que ñëpp gis nañ ne ça fait un an fi ne moom moo may solal. bu ma amee yenn kii dama koy wax mu def ko moom it mu def ci bu rafet. ñu jël beneen côté bi aussi euh, tenue yi nga gis ñu patché ko. dugal ko ci clip bi moom moo waral euh, sañ-sañ ngay wax noonu. dafa am ay cœur wala way bi parce que lépp sa voix la. waaw lépp sabab bu ñu koy déglu a l'impression yaa mën a woy nag. oh <laughs> merci. Euh, mais tey jii à part Jikatina bi. Mm-hmm. single la buy annoncé album. bi war nañu ko mën a travailler mu génn. mais liggéey bi des na. Mm-hmm. mais album bi lan lañ ci war a mën a xaar loo ñu mën a may en exclusivité fii. mais peut-être mais d'accord surprise la mais ñaata titre lañ ci mën a xaar. non li ma wax si daal démb rek laa lay wax. surprise non si daal si daal moom tëjul si daal loo wax ci plateau boobu kenn du ko seetaan yow am nga droit bañ nga euh, émettre ay réserve mais fii quand uh-huh. Sénégal 7 bi nga xam ne ñoo xew uh-huh. euh, fii moom boo fi ñëwee war nga ñëw war a mën a wax peut-être luñ ci war a mën a xaar révélation lépp daal da nga koy tënk daal ba lii ba ca kanam hmm. fi ne ni na gaa yi consommé gum fi mu ne ni dikkati daa bi ba ci kanam rek hmm. tuuti yàggatul hmm. yaa euh, fan nga nekk instant bi di jouer foo xamante ni say fan non nii la 22 sax Fall yëpp. que nañ mhm. ñëw fekk ñu Villa Cristal le 22. Mhm. ñu defal leen soirée

jaajëfal ñëpp nag di kontaan melomaani fansi et tout mm-hmm. di wax tamit euh, fansi titi yi mënu ma leen fay yàlla moo def euh, ma nekk ci xoli doomu aadama ak awa yi donc l'apparence nag day trompe dëgg la tontu bu jongee wala yaa ma gën a xam parfois il faut il faut qu'on se défend mm-hmm. que yéen journalistes yi du ngeen bàyyi weer ci benn fan <laughs> donc nag euh, artiste boobu il faut savoir comment communiquer ba nga xamante loolu mooy waral suñu laajee kenn du la dugal yaa man ah. nag je me défends donc bu ci nit gis ci side boobu rek ne kii ne man samay fan sax xam nañu dama leen bëgg fii laa leen def ñoom aussi ñi def ma fii mhm. mais xam nga en dehors loolu kumpa nag day rey nit mhm. boo nekkee ci kumpa rek wala gis ci tiyee ci lan la nekk wala ci lan lay dox loolu aussi mën na la jaaxal mhm. mais ku bëgg a ñëw découvrir bi maa ngi nii maa ngi mhm. aw ma sama buntu kër kenn mhm. Mhm. vraiment doxuma sax ci site yooyu fàttali waale leen également say plateforme yu ñu mën a waaw non youtube bi moom ku dugg ku ne moom comme li ma ko xëy na facebook bi ah, Titi Sénégal l'officiel tiktok bi aussi Titi Sénégal l'officiel du dëgg instagram bi aussi Titi Sénégal l'officiel youtube beeg yëpp vraiment te dinañu gis ne sax am na yeneen liggéey yuñ ci gën a def yu gën a màcc yoo xamante ne nit ñi dinañ ko gën a dinañ ci gën a mën a gis seen bopp. d'accord am na solo loo ñemee ci dikkatinaa bi. Hmm? loo ñemee ci dikkatinaa bi. waaw dikkatinaa bi bu la neexee dikkatinaa bu la ci neex rek. man dikkatinaa bi laa bëgg ndax dikkatinaa bi moo xew te moo bees. ah bon day koy play bag wala danga bëgg ñu may la ko en kii. acapella nii rek yow. Eh. yow sa yow sa yow daal defal lu la neex noo ko sentir rek fu mu ne nii euh, may ñu ci acapella bu gàtt rek ci pàcc boo ci wax ci bi bi man de yow lay xaar man de yow lay seer moo la gisee nga béggal ma man yaa ko fekk ci ay moroomam gëmloo ko ni bëgg nga ko gàngoor gu mu mën a ne hmm. ak coalition bu mu mën a ne nga gëmloo ko ni nopp nga ko abi kebe kebe jukaale hmm. siri del bu dee ne day jaay Sénégal daf koy jëndee jox ko soo jegee frontière yi mu wuti jox ko xale bee ko ko jaral su dee njaago mu feccal ko su dee tukkuloor mu feccal ko yoo lele yoo lele ndeysaan ak ah, mun a way ah, Titi nag euh, vraiment tey euh, ça a été un plaisir ñu recevoir la euh, file ci Sénégal 7 rawatina ci émission bi di Sénégal VSD je pense que ni bi mooy sa ñëw bu njëkk Sénégal 7 bii de sama première mais du doon sa mujjantul ñëw non pas du tout parce que fii moom naa la maison sa kër la waaw vraiment Pape Ndiaye sa frère la moom fu mu mu fu mu lu ne rek da ngeen ci tax waaw loolu moom dëgg a nag mag boobu ñu ngi koy nuyuwaale tamit de passage moom sax bu rana maay sama sama chéri la may wax jeex na <laughs>